bismillaahi rahmaani rahiim bismillaahi yan moonu haay bilaa manaay walantihaay hamdan li rabbi xayri murabbi xadra maxalbi bil ixtidaay loo sukoori bilaa kufoori wa huwa nasiiri الفتاي لو اغترابي للاغتراب لو خطابي ما ندائي لك ندائي لك ثنائي لك التجائي ما جدائي يا من سباني يا من حماني هما جفاني بمحو دائي أسبل ستوري أصلح أموري كسر خيوري ñu ngi fii ci Lagan ànd ak sunu sëriñ Cheikh Momadul Habib moom sëriñ Abdoulaye Diouf moom sëriñ Thierno Diouf Lambaye di ñaanal sëriñ Mountakha Mbacké yàlla na fi yàgg te wér di ñaanal sëriñ Abdou Modou Mbenda Fall moom it mu yàgg fii di ñaanal sëriñ Abdoulaye Diouf sunu xalifa bi di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Saliou yàlla yàggal ko te mu wér eh, di leeral tuuti rek ne ku leeralut da dugg ci lëndëm te Serigne Saliou leeral na lépp ci digganteem ak jaam ñi digganteem ak njaboot gee bokk yi ak taalibe yi ak xarit yi moo tax tey ki ko dond te doon ko te doonoon ko bala mu ko dond te bi mu ko doonee làng ak moom te tasu làng ga làngaale ko yokk ko te yàqu ko ba làqal nu fu yàqu yàqu dul àgg mooy Serigne Cheikh am Serigne Saliou moo waral tey fii ñu woote ci lagan euh, ngóobum saaña sañ-sañ la signature la eggale sab sànce te doo dugg cib sànja loolu ku dul Serigne Touba mënoo ko ndax Serigne Touba daa ma nekk yàlla manal yàlla ma nekk bokkam manal leen def lu kenn defut di lépp fépp lu ne fu ne ku ne sa lu ne nekk moom mu jël lu ne jox ko ne dem jariñ ku ne du gone ku ko kone nekkatoo gone te si seen Samuel Sarr mi kone na ko kon man naa def gone yi ku ne ndax liggéeyloo na ñoo xam ne waru ñu woon sax xam fu ñuy liggéeyale Serigne Touba naruñu woon a liggéeyal Serigne Touba te xamuñu woon it ñuy def ba liggéey Serigne Touba mu fexe ba indi leen ci baaxam ci jikkoom ci taalubeem ci yaram ci tegginam ci alalam te alagu leen wut ak ñoom te wëralewu leen ba ni leen fii ci lagan ñu lang fi lang fi jël fi la gën te dootu ñu lang fenn te fu ñu ànd te ànd ak ñoom la gën ci li gën ci fa gënal ci ki gën ci yàlla kooku mooy lagan samsu sunuusi rasuruusi xayrul anisi lil awliyaay sifaasu dóori diyaawu dóori banul bu dóori baadi diyaay ملكا خاسعا متوادعا وإلما كثيرا نفي الله إني سألتك خلقا خاسعا متوادعا وإلما كثيرا نفي الله وتوبة قبلت من ziar bu baax a baax di leen nuyu yéen di delloo njugal ñëpp di sant nag waa ji jërë këñ sëñ Sameer Sall jàmbaar si taxawaay jàmbaar la si si waar ndax la ngay seen fii si ay mbooloo lépp jëmmam ko tax fii moo tax lu mu defal daal dafa bari kon dañuy junj lu tuuti rek daal fay mën a yem wàllum courant beeg wàllum ndox meeg lu bari dana ko gàddul te saa yu ñëwee fii dañuy ba daje fii ngir jëmmam képp waaye keneen taxul ngir jëmmam rek moo tax ñii daje fii waaw di ko ñaanal Serigne Saliou defal ko wér ak gudd fan defal ko yokk ak yokk ci barke Serigne Touba Mbacke jàmbaaroon nag si dund bi waaw ñun koy dañoo mënta wax lépp lu mu def ndax nit da bëgg wax lépp sax waaye xaju ci nopp moo tax xaju ci am xel moom kay nan ko gën a ñaanal suñu borom defal ko yokk ak yokk te rek ci barke Serigne. sëñ Saliou Sall. ñu koy ñaanal gudd ak lépp li mu bëgg ci sëriñ bi rek mu defal ko waaw lin xaadat lu jooru wal masaaliwu bi tey wal jasbe way ni saaliwu sëriñ saaliwu Mbàkke moo woote xel koom di ko gor murit bu nekk gàddu njor mel ni ku jëm xare badar ngir jëmmi sëriñ saaliwu sëñ Saaliwu tarbiya yaa ko yeesalaat gàmmoy yaa ko yeesalaat xéewali yaa ko dolliwaat jaraama seexi Saaliwu ku weddi lii demal la gan isaa di mbar moo mënu gën yaram la wute naa sa gën Bamba ko ñaaki xarnu be waa jërëjëf jawrin noo ngi lool ñu taxaw ak sëriñ Xaadim mu baax mi ñëpp xam ko ci wetu président Samir Sarr at mu jot nag nu ànd moom ñëw fii ci Lagane te kat mi ngi bëgg a yàgg Lagane nag toolu Serigne Saliou la ku fi ñëw gis nii ko Serigne Cheikh defaraat lépp yokku na daara jaa ngi ni jumaa jaa ngi nii lépp a ngi fi waaye ndigal la nga xam ni Serigne Saliou joxoon na ko président Samir Sarr at mu jot mu ànd ay soppeem ak ay xaritam ñëw fii ci Lagane at mu jot nag kanam la jëm saa yu jógee nag ñamu daa àndal rek lay àndal nuy ñaan lii yàlla na yàgg lépp nag mi ngi ci xidma ndax yoonu mu sëriñ Tuubaa ne Tuubaa li abdin muridin saadiqin lahumoo bi xidmatin aw bi hubbin aw haddiyaati boo bëggee sëriñ bi jébbalu ci sëriñ bi ah danga ngay joxe sa addiya nag waaye ngay xidma looloo waral nu ñëw at mu jot Lagane liggéey si ci liggéeyu sëriñ Saaliw bii ñu ñaan sëriñ Cheikh Mbacke Saliou yàlla na fi yàgg tamit président Samer Sarr yàlla na yàlla yokk xéwalam ba yéen ñoom liggéey sëñ Saliou mu liggéey ko dama doon ubbi rek alaaji xaadim waaye bu ñëwee dana leeral lépp sëñ xaadim bismillah jërëjëf alaaji Cheikh Mbacke ginnaaw bi nu santee yàlla julli ci yonent bi sant sunu ñaari waajur yi sant sëñ Saliou soxna Fat Jaxate liggéey bi mu doon liggéeyal baayam ba Cheikh Ahmad Bamba Xaadim Rasoul bàyyi ko ak sëriñ doomam ji yàlla na ba mu lu sëñ bi naalul woon mu eggali ko. jërëjëf ci barke sëñ Saliou. ah Cheikh Mbacke li ñu fi dajale nag. loolu jarul laajte. walaay mooy liggéeyu président Samuel saar jàmbaar ji. Mhm. ki nga xam ni gëmul ku dul sëñ Saliou soxna Faat Jaxate bëggam doxam waxam subaak ngoonam mooy sëñ Saliou sëñ Saliou demul nag ba ko fi mu bàyyi njabootu sëñ Saliou gi lu mu am sëñ Cheikh Saliou la ko yéene. bu ñëwee la gan ci la xolam di sedd. bu ñëwee la gan ba maase ak dongo yi tokki suuf dongo yi tëdd ci kawam mu di leen jox àddiyee xolam day daal di sedd moom daara yi la koy dundal bañ na ko ba bu ñëwee comme fi nuyu boo dee góor sëriñ la lay wax soo dee jigéen soxna la lay wax te ba sëñ bi wootee addiya kenn du ko ci mën day joxe addiya ju mat addiya ba pare ni murid yi ñëw leen barkeelu te lu waaye wax mun a joxe wuñ ko kat ndax sëñ bay joxe ba pare di nu sagal kon nag ngóob mii ko xaritam yëpp àndal ñëw fekk ko lagan yàlla na fi yàgg ñëw te képp ku ci def sa ñaq bu déwénee yàlla na ko sunu borom ful sotti ko ay xéewal jàngkat bi ko doon jàng ak ñun waxkat yi ak mawle nawleem yi ko wuy si ñoom ñëpp yàlla sunu borom fay leen yéen ñi nga xam ne yéen a jógee leeral it sunu borom yokk seen i xéewal ci barke sëñ Fallou. digganteem ak toolu Lagane dafa yàgg xam nga sëñ Saliou soxna Fat Jaxate moo daan joxe toolu Lagane yi bi mu fi nekkee Cheikh Amar jëwriñu Lagane lan xel Xelkom lan ko def. Samuel Sarr ñu def ko jëwriñu Lagane ñoom ñaar ñëpp bu jotee nag kenn ku ne da ngay wujjeeg sa morom ku ne da nga naan sa morom doo ma gën a xeer ci sëñ bi ku nekk loo am ak loo denc ak loo xam ci nga koy def moom it lagan boo fi ñëwee taaral na ko jumaa jaa ngi ni daaw heure bii danoo intégré euh, jumaa ji àjjuma waaw ca samedi ñu xëy ñëw lagan courant bi ñëw na lagan ndox mi ñëw na lagan mhm. dongo yi jàng ci lagan du ñu yelwaan du ñu def dara lépp fi la leen fekk ci ndigalu suñ Seex Saaliw ak yërmandeem ak um baaxam loolu mooy digganteem ak lagan te dana wër tool yi mhm. jaar fépp mhm. ca war a dem mu dem ca waaye nag mus fu teeku liggéey tey bi mu liggéey sama yaram dafa daw xaadim na koy xool ba mu yàgg xaadim bàkk ko hmm. ni ko at mu jot nga def lii te boo jógee waa kër Serigne Saliou yi jóg mag ñu jóg hmm. donga yi jóg hmm. waaye soppe yi jóg xarit yi jóg am na ñoo xam ne seen président Samel moo leen dimbali ci liggéeyal Serigne Touba mësunoo xam liggéeyu Serigne Touba waaye ñëw nañu lagal fukki at ànd koog moom liggéey liggéeyal Serigne Touba te Serigne Touba nee na bi xidmatin aw bi hubbin aw hadiyaati waqti awaa ijële si na daamoo fii xidmatin wa hablahum maaraamu alaaji Xaadim waaw li mu wax kenn mënu cee dolli dara xanaa di ñaan yàlla rek sunu borom defal nu liggéey bu nu nangu te itam ñu yàgg fee ñëw yàgg fekke lii ndax moom kat jàngal na nit ñi naka la ñuy doonee taalibi ndax yaakaar naa ni ku amoon addee di ko joxe da koy joxe ba pare toog fa toog tey ñaan yàlla naan yàlla naa gën a am lu ma joxe waaye moom day joxe addee ba pare raam summi ay dàllam ci milliardaire nag te njëkkewul tey bi fi sëñ Saliou nekkee la ko njëkke woon bi sëñ Saliou demee mu yeesal ko ci doomam ji te bu ngeen doon doon tey moo lay gën a doon taalibi te boo ñëwee ci moom doo gis lu dul sëñ Saliou rek ak dongam yu baax yim ko bokkal yàlla na yàgg yéen waa leeral yi nga xam ne at mu jot ngeen ñëw tey programme am da ngeen cee yàgg participer di gërëm seen PDG bu baax bi daam Dieng. sant sama yeneen jëwriñ yi nekk si si daara bi ñii nag ñii nag ñun ñun ñun moom sëriñ bi moom daf ñooñ ne liggéeyal la ñii rek ñii ñii ñooñu tax a jóg. parce que ñii ñooy avenir ñi ñooy lépp sëriñ bi sëriñ bi daf leen teg fu xam ne ñun tamit dañ siy jàpp rek donc euh, man damay kontaan tamit suma leen gisee am nañu si am nañu si dëgër bopp am na ñu si mën a jàng mais ñoom ñëpp sëriñ bi la bëgg te ñu ngi jàng alxuraan loolu moo si am solo ñu leen di sant bu baax te comme tu dis c'est le meilleur moment yi nga xam ne su ma ñëwee Lagane man tamit damay kontaan. démb maa ngi jógee Dakar jóge sama bureau vingt trois heures man kenn sama oto dawal mais di xalaat xale yi ngay dem seeti rek man tamit amoon naa si kontante du ñoom rek ñoo am kontante man tamit am naa kontante parce que sëriñ bi moom sëriñ Cheikh Saliou lii la xam liggéeyal njaboot bi di liggéeyal euh, ndaw yi parce que loolu la ko sëriñ Saliou digaloon ñun nag dañ siy jàpp rek ñun ñëpp ay ndongo la rek parce que ñun maa leen gën a mag kii maa ko gën a mag voilà mais euh, ñun ñëpp même chose la. fii nag mooy lagaan mooy fii fii mooy ñun moom suñu daara ñun ñi nga xam ne ay taaliba sëñ Saliou lañu ak sa taaliba sëñ Cheikh Saliou di ko sant rek sëñ Cheikh dañ koy sant rek parce que gis nu mu defaree fii ni defaree fii juma ak yépp ñu ngi sant rek leneen moom c'est fusionnel comme tu dis. c'est fusionnel, mais c'est quelque chose euh, qui, est, important pour nous. Chaque année, euh, ñun euh, nous sommes la Lagane, nous sommes en train de xalaat lu nekk dakaar lu ñu xalaat lu nekk lu nekk fële daal xam nga ñun lii la ñu xalaat voilà moo tax ñu ngi see sant bu baax di sant sëñ sëñ Saali bu baax a baax a baax xam nga ñun moom ñun ay ndongo la rek euh, ñun daal dañuy santati Serigne Saliou Mbacké bi nga xam ne moo ñu defar tey ñu yeesal suñu sant si sëñ Cheikh Saliou liggéeyal liggéey liggéey tool bi mooy liggéeyal gone yi rek daara bi du pour ñun daara bi gone yi ñoom ñoo fi nekk ñoom ñoo ko ñoom ñoo fiy jàng ñoom ñoo fiy dund chaque jour ñun nag ñëw si tool bi pour liggéey pour que at bi yëpp ñoom ñu mën see dund ñun loolu mooy suñu bégte te bégte boobu dañ siy yokk euh, liggéeyal sëñ Saliou ak liggéeyal sëñ Cheikh Saliou ñun yokkute si ñun nga xam ne ñun muy jógee si taax yi daf ñuy dimbale parce que ñëw di ko liggéeyal ak xale yi pour xale yi ñun loolu daf ñuy dimbale day dimbale taalibe yu bëri moo tax taalibe yi di jóge fu nekk y a plus de deux mille personnes fu nekk ñu ngi dugg soo duggee pour euh, pour ñëw tamit Euh, barkeelu si liggéey bi parce que loolu liggéeyal sëñ Saliou daf ñuy dimbali ñun taalibe yi moo tax ñu si santati sëñ Saliou di si santati sëñ Cheikh Saliou ah moom day day dama dama yaakaar ne lii tailleur a ko defar hmm? Samuel Sarr bi nit yi di dégg sëñ Saliou ko defar donc loolu rek doy na ñii soo leen xoolee rek da nga leen war a gën a dolli liggéeyal dolli liggéeyal nag pour ñi dafa dafa dafa jot daal am na yeneen yu ñuy xalaat pour ñi parce que ak sëriñ bi incha allah ñoom sax dinañ am bektel yàggatul euh, mais euh, sentiment de kontante rek kontante rek chaque année nag te fii rek laay fii rek fii rek laa mën a dalu dem naa Istanbul mënuma dalu dem naa Paris mënuma dalu dem naa Londres mënuma dalu dem naa Genève mënuma dalu mais suba xasee ba dugg fii démb une heure du matin xaw naa biddante sax te si ndax dallu maa ngi sant kon sëñ sant leen yéen tëpp xale am jom ak lu jom daa bokkul président sa mel saar nii nga am jom ak lu jom daa bokkul ay waay président sa mel saar nii nga mel daa yombul yaaram ba sëriñ saaliwu gërëm na yaaram ba seex saaliwu gërëm na waaye nii rek ngay mën mel yaa bëgg sëriñ saaliwu yaa wóolu sëriñ saaliwu yaa doyloo sëriñ saaliwu te sëriñ saaliwu sant ko war na kuy jullit góor a rawatina ko di murit moo gën ci nun bokk ak xarit jaaraama Seyku Saaliwu sëñ Saaliwu Mbàkke tarbiya moo ko yeesalaat gàmmu yi moo ko yeesalaat xéewal yi moo ko dolliwaat jaaraama Seyki Saaliwu xéewalam yi naa walalal jàngkat yi naa ngalalal rajo yëpp naa telalal moo taxit ma naa ngelalal mbalka yaa ngi naa xurur ceebu jën yi naa cururur warga yaa naa xururur sundaraa naa diririr sëriñ saaliw moo tax ba xiifatun nung maratun nung ñakatun nung jooyatun nung nu ngi liggéey sant naan nu sant ma saale wo xifatun nu imaratun nu dakatun nu o jooyaatoon nu nu ngi liggéey sant naan nu sant lee leen ma saale wo sant kon war na kuy jullit ana soppey sëñ Saaliw ana soppey sëñ Saaliw ana soppey sëñ Saaliw jarama sëriñ Saaliw xanaa di leeral lu waay bëgg a xam ah nag seetaanal rek leeral boo demee leeral lépp dana leer ci lagan ñuy ñaan télé bi yàlla na yàlla yokk lépp nag waaye ñëw ngeen lagal nag yéen leeral dana gën leer ndax fii daa yàgg ndax ko weddi lii demal lagan rek lagan a ngi nii nag Cheikh Issa Diène borom Diène ak lagan waaye Serigne Saliou Mbacké fii mooy lagan tey la gën borom lagan alaaji Xaadim jërëjëf jërëjëf Cheikh Mbacké jërëjëf kontaan